yêu كأني أولى عنحتي خولة من لقنار بكي لباري دولار man te xew no man a mel fo man a ne xol bi yow la bëgg finally warm up. ko ko non ren nga xam ne dafa ñuul sax ku ñuul la de la baby Kandal tangal tangal sokkomo lekkamo tukkili moolay tangal jumo he he he holi o faɗa ah jom a Ça salam sawa sawa biye mama la on sef kan mama lo sete non sama xari lo man su yo ni comme avion buy pas. père xaw ma man. xaw ma la kay. faral di ñëw fi maam maam ñu def ay snap ak dugal ci tiktok bi quoi. waaye man kii moom réewul. kon yow yàgg nga ñëw fi. dama fi ñëw ñu nekk ci xam nekk si waaw dañuy def ay vidéo di kale di dugal ci tiktok bi xam nga man. xaw ma la. man la Henri. ma ne nga naan ma Henri. man laa ca Henri man. non non non lii ñàkk fayda yi bëgguma ko de waxuma nga sol ay seen yi man lii laa gën a bañ ñuy sol ay seen yi. te nga nekk julli di seul yi li nga xamné di julli dégg Henri dem di laaj ndax julli la chrétien la chrétien même chrétien ça c'est ma série comment tu vas ça va bien ci noo nekk maa ngi nii dañ naa la gis ah maa ngi fi de naka liggéey bi sant yàlla bu baax ça va bien naka tàngoor bi ah dëkk baa ngi nii daa tàng alhamdulilah ça va bien yow merci mais tey nga leer sax eh ça se voit que ni xaas baa ngi dugg mooy katam nag tuuti rek ah ki ne eh, macha allah nga jongo ma eh, ay leer gis nga sa bopp comme man mi naka la ne mu lay toppatoo <laughs> au contraire yéen a kay maa koy toppatoo mais yéen chaque fois lu tax ngeen di wax yéen daal jigéen daal mooy toppatoo góor ak chaque fois quoi nangul moo lay toppatoo man maa ngi toppatoo leena mais leena toppatoo leena mu liggéey de c'est vrai ça c'est vrai a yëpp góor rek non ça c'est vrai naa la ah, fan yi bëggoon naa ñëw kër ga ñu waxtaan nag mhm. mais daal temps yi bureau moo commencé métti liggéey bi daa bëri trop réserve dafa métti mm. ak dossier yi da ngay liggéey liggéey bay bëgg a dee dama sonn moo daal fan yi bëggoon naa ñëw kër ga ñu waxtaan mais daal amoon benn temps ah mais tamit ba mu woon damay daw ñëw yaay sama chéri nga xam nga ne ba ma soxlaa ñëw fay ñàkk. dégg nga ak jonge <laughs> bettu woon si yow. ma soxlaa damay ñëw de. mais nag soxla woon naa la nag. ok mais bëggoon naa waxtaan nag. Mhm. si diggante ak grand pâté. xam nga man dama laa jafe ko sama sœur. fii kii nii xoolal ni nga mel. yaa ngi jong ma. macha rafet taaru jigéen dàqu la. mi nga topp grand pâté mi nga xamante ni kenn xamul lu muy ndróol xëyut. gontul lu mu lekk suba ngoon moo ko jox mu soo si ko ba suuf si moo la jógee bugguñu seen yi bugguñu affaire yi bugguñu ko dañuy yëngu ci showbiz bi quoi ma ne ma ne man daal showbiz daal naa ne daal showbiz daal am na boos daal koo wax mu ne showbiz showbiz daa am ñaan soo nekkee si showbiz na lu sama yoon ah ma wax nga ñëw di seet ay jigéen ah nekkal góor góor da ngay nekkal góor nga yem seen kër nga bàyyi di seet ay jigéen wala ñu ñàkk fayda yi bugguma ko de. ma sama xarit la quoi. ma ne xarit góor jigéen yow faa laxara bi faa laxaraane xarit xarit la anani bi de wara atu doy gan layaat yow maman est-ce que ma la wax bu fi ñëwaat di seet maman dégg nga ma la wax génnal kër gi eh, naa xamal benn affaire de xamal ba si kër laa jóge waaw laa dugal te bu ma dàqee man soxla ma maman de maman moo ma soxla waaye dugal fii nga naa si kër soo génnee si kër tamit di nga génnaat si kër bi de xool ko mu mel ni gémmuñu kii boo takkee la la lay yore ki la la mën yow borom kat-kat yi nekk fi milliardaires yi nekk fi millionnaires yi nekk fi nga bàyyi ñëpp topp kii nga xamante ne buy dox dana nii kenn xamul lu muy ndóol man li ma ci gën a métti mooy un vaurier comme lui ne mérite pas une belle fille comme. arrête mais mbay yow ku ñàkk sa loxo. yow mbay pour man soo may téye fii naa ma ay affaire bu Pathé sa grand frère pour man danga may wax sax lu nga xam ne day gën a demal sama diggante ak Pathé mais mbay yow attends sama bàyyante ak Pathé ban intérêt la leen amal ban sens ba ku ci nekk naan ma ki ne gauche ki ne droite bàyyi Pathé si te gis nga su ma xamoon nit si ñàkk fayda yi nga may arrêté loolu ba fi taxaw di wax ak yow dégg ma fekk ma ci yoon dima arrêté te gis nga mbay que ça soit la première et la dernière fois nga may kar ci mbedd naan ma ay bàyyil Pathé bàyyi lii gis nga Pathé mooy ki ma bëgg yow mënoo ci dara sa moroom kazalika gis na boo ci mënta wax luy dem nga nopp ci bu ma diggante ak pàtte xajal ma ci mi ndef muy dox ci ko suuf est que yaa ngi dégg moom laa bëgg ñàkk fayda bay bëgg a dégg waaw man je rêve quoi mais ne liggéeyu ko sax mais moo ñàkk sens grand pàtte dafa ko liggéey kii mu jong may macha allah non liggéey na kii mënul nekk lu kenn yow la bànneex ci xol la dundu gu neex bëggee la bari doole baax yaa ngi ci jàmm maa ngi sant bu wér rek nga koy toggee ci kër gi ah waaw nooy def <laughs> bu ñu xëyee moom ñenn ñi ku ne ku ne ku ne dem. wallaay wallaay ah, nga toog daal di. wallaay góorgóorlu rek. di sàmm njaboot gi. dëgg la Guèye. noo def waay. sant yàlla naka njaboot ga nag. ñëpp nga ca jàmm. alhamdulilah. taarikaal. Euh, Touré. maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. waaye di wax jotaay bi yàgg naa koo bëgg. dëgg la tey nag la ko yàlla dogal. Mhm. suñu ànd bi kañ la. si sëñ Guèye yaa ngi wax lu yàgg. lu yàgg yaa ngi koy wax. jërëjëf. waaw ba ñu nekkee xale ba léegi ñooy ànd. ñooy ànd a ñaaw benn yoon. kenn mësu ñoo xamee xiiroo ak ŋaayoo. Mhm. saw yàlla def mu ñëw ci diggante bi. Mhm. ñu dalal ko man maa jàppoon ci loxoom mhm. kër gu ne ma dugg fa moom. présenté ko waa quartier bi yépp ba njabootam juddu ci tey bu yàlla defee doomam ak sama doom bëggante. mu am na ni mu ciy taxaw wala mu ciy wax. Hmm. mooy jaaduwul te jekkul te rafetul. te fu ma tourné ci koñ bi mu may gaaruwaale mu may wax wax ju ñaaw ndax lan moom daa yor man yorum am am ku koy ku koy joxe du yàlla suñu borom ah ma ne woon nag lii nag moom day dakk hmm. waaw day dakk ndax dootuma nangu benn yoon muy deseeg man ci mbedd mi di am na muy waxeeg man hmm. te ay kilifa lañ. xam nga ne sama njaboot mooy dugg ci njabootam rek di bëggante mm-hmm. waaye su desoon man ak man képp mm-hmm. mën nañoo dundee nañ daan dundee lenn du ca xew mm-hmm. waaye mbëggeelu xale yi kenn mënu ci leen te paate dëgër bopp rek ndaw wax naa moom suba déggaloon kon bàyyi na bu yàgg waaye mbëggeel la kenn xamul ay mbiram xale yi bëggante loolu jar na ay xiiroog ngaayo sama doom ak doomam moom mi xam ne maa ko dalal baa ci koñ bii kon waroon na ne bu xale yi bëggantee waron na dem sax maye len te duma lacc sama sama xalat mom bu dee mën ngaa wax ak mom waxal ak mom ne ko na ma bàyyi tout tranquille gannaaw ba daf ma xet de nga jërëjëf Guèye sa wax rafet na sa kaddu rafet na ndax ay nit bu ñuy yaakaar naa war nañ mën jëf jëf ju rafet wax nga nag sa biir wax ma dégg ndax saw yaa ko fi indi maag yow la woon saw ñëw fii nga indi ko présenté ñu ko ñu xam ko buñ nekkee xale ba léegi yàlla na buy rafetal yow mii doomu aadama da nga cee war a ànd fi dafa neex. fii dafa féex de fi ñu non place dafa neex quoi mais expliqué naa li ma jëlee Gale Mama. Gale Mama. booy Gale Mama laa dem bi may yéeg si escalier yi. papa mama woo ma man pour man loolu damay doyee paa bi dama xas sama comportement ni ma solo avec ça nan ma sa scène bi nga takk man xaw ma góor nga xaw ma jigéen nga paa bi xoolal lu ne wax na ma ko lu ma waxul rek moom paa bi da koo xamul. kon yow. yow boo boo ma yëgaloon man yow doo fa dem. mais genre paa yi mel noonu est-ce ñu ngi am ba tey. dafa soxor maman mu waxaale ma. tamit li ma ci gën a métti ba métti ma mooy daf ma dàq comme xaj. comme ni nga ko waxee rek foofu laa ñëwee xale yi suñuy bëggante loolu yàlla la ndax yàllaa yor mbëggeel man de su ma amoon doom bu jigéen paate gis ko bëgg ko sama kër balaa ma lay wax dama leen di may. ki ne nag jigéen la du or du jamaa melu nu kenn melu waaye yàlla moo def diggante ak mu paate mu bëgg paate kon nag saw li mu war a def ànd ci yaa ngi dégg yaakaar naa nag wax ji nag lu ëpp tuur te man duma seetaan ngeen di nekk ci mbedd mi ay magum jëmm di da sante di def yooyu duma ko seetaan saw day yem palaasam day yem palaasam demoo ci paate ni ko bëggal kinne demu ci kinne ni ko bëggal paate yàllaa leen boole da ci mën a ànd mu ànd te da cee war a ànd saw la mooy ndey mu ñuy xeet ci dëkk ba la jóge àll ba la jóge ñun fii lañ juddoo waroo romb mu lay gaaral xanaa daa fàtte démb saw waroo romb mu lay gaaral saw mooy kan lan mooy am luy ñakk man leen rek laa bëgg mooy nga wax ak moom su ma rombee su déggee ne mën nañoo nuyu ñu nuyu su ko mënu mu dem ma dem. day dana la dana la bàyyi dana la ba kon baax na saw dootu la gaaruwaale. baax na man dinaa ko dina la may jàmm sinon ma dugg ci guerre te man su ma duggee ci guerre gi dina ëpp saw dina régler boppam. kinne nag ak paate duñu bàyyante ah. Touré te man sax léegi kinne ak paate naa ci dugg ba mu saf saf duñu ñu bàyyante. yëfi xale la jarul nga ciy dugg. voilà te saw jarul ngay guerre ak moom wala ngay indi ak moom benn problème. waye dal waxal ak mom ne ko no baye jar mu may romb di ma walé dotu la gaaruwaale ak wax ñàkk fayda. dootu la gaaruwaale dootu la gaaruwaale. walé baxna ki nek parti dañu bëggante xale lañ te yoon la. yalla ko dogal dina am man dina xar sama tànk tubay. loolu baxna waaw kay. waye nak wéy ma tay mom do dem xam naa da ngay. dé wax nga dëgg bàyyi ma am. ah xam nga ni tay añ bi mom da nga fay wara añé war ko ayé sa ñaareel xarit jëkkëram a aye xam naa ne togg moom mën na. togg ñooñu ay toggaloog lañ. <laughs> ñaareel ah amuñu morom. Eh, wax wax ci nànk na. waaw yow ah oui mën na ah ci ay morom baax na togg te si luy seen yow Guèye bàyyi ma waay ñoo xajal de dama ni. lu bees ak lu màgget du benn. dégg la ngay wax. waaw yow bàyyi ma nag. nit nag lu moom da nga ko koy jox. waaye aw bi ku baax la. baax nañ ku baax nañ mais ñaari amuñu. aw ñu baax ne sëy bu bees ak sëy bu màgget bokk. <laughs> nga lu ne yaa koy wax. waaye coow càpp la. ah ma. baa baa kon ma dem ci ah, ah toogal xaar añ bëggoon dem seeti kii rek toogal xale bu baax mu laa bëgg a seeti rek Ahmed Dramé ah. eh, suñu doom wax nga dëgg nga xam ne mu ngi def rek lu baax dem seet ko rek ziar ko nuyu ko ñëwaat léegi xam nga lu ñuy defa ah? dañu añ ba pare eh. ànd ak yow waaw ñu dem fa ziar ko ku baax jërëjëf <laughs> kon nag la paix la paix <laughs> mais kontaan naa ci yow rek yow kenn du yow entrée. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va Djibé ça va bien. ça va bien. ba dérangé nga la. ça va non. yaa ngi relax ba. bien. déglu hein? nag de xoolal paa bi def na ma yaa ngi ci biir rek ma dugg si. ah kon nag paa ko mën yaa ngi ci biir. oui. vas-y toi. merci beaucoup. sinon ça va. ça va bien. j'espère que je ne suis pas dérangé ah. sinon ça va. parce que da nga ma xaw ah ouais, c'est normal.

bon tey nag je pense que dama fi ñëw uniquement pour waxtaan ci sama diggante ak yow parce que nekk na loo xamante ni ñor na ma ba fu ñor yam ki ne je peux t'assurer que depuis bi ma la gisee ba léegi dafa dama mel ni ku perte repère perte repère cest dire xamatuma fu may jaar xamatuma fu may aw parce que à chaque fois sa image mi ngi samay bët ma koy gis je n'arrive même plus à dormir sincèrement par là voilà ci commencement bi nag je pensais que admiration la wala benn coup de foudre la buy jàll mais da nga insister trop ci sama xel ak ci sama xol da t'a toujours existé depuis bi ma la gisee ba léegi sincèrement parlant mun xam ni nekk na loo xam ne du luy jàll quoi donc ci laa découvrir que ni li yek sama bir xol ay sentiment yu dëggu la c'est du pur sang amour té mënuma fen sama bop té duma la fen aussi li yek yëg si yow jamono ci ëpp na ma doole torop torop torop torop torop torop ba tax na daal su sañoon nga yaatalal ma sa xol rek ma jël place pour te montrer le véritable amour

ma benn nit boo xam ne danga may jël di ma dàq man waxuma loolu gis nga anniversaire maman bi bu dee seen la koy defee non du man maay ñëw. voilà ah, xew yanu xew en mai yéen di daal. mais maman moom dama koy teel a wax lu leer moo bu dee foofu la ko nar a defee rek gàlle bu ak paa boobu noonu noonu noonu paa bi xam nga noonu man paa ma dàq. noonu yéen ngi noonu. après dina la wo mané ñu waxtaan mais moment moom après li may confirmer mom man xamna naa ko moom xam mais bu dé anniv bi fofu la koy défé non dèjà xolal ndax xoli kenen ko xamanteni mo ngay koy sinabal anniversaire mais du doon man. waaw soxor def na ko. iñaan na iñaan

Je suis franchement désolé, d'accord. C'est tout. Bon. je suis. mais qui n'est. ma la nee argument yi nga je mën na tax faire de non sincèrement damay suis Kiné pour de la t'as raison nak. am ci loo et que bëgguloo trahir Moi aussi je ne peux pas être égoïste parce que je ne peux pas bâtir mon bonheur sur le malheur d'un autre di fecc sama bànneex ci naqaru keneen mais j'ai pas le choix Kine Kine jamono ji lii mën ne c'est la première fois dans ma vie Kine yow yaay jigéen bi que a intégré sama biir xol donc tey jii nii nga nekk sama wet may gëstu di la gis le la takla la farata yalla ak sunna Mohamed. man c'est ça qui comble ma vie manqué wu ma dara mais limay dolé ki né lool rek la mën a doon manqué ma dara maa ngi sant mangi maa ngi liggéey maa ngi daan sama doole j'ai mes entreprises à mon âge di sante yalla bu baax mais li ma manqué seulement ki né si sama life yow la te nag encore une fois ki ne xoolaatul bu baax a baax li ngay

bëggee la bari doole lu manti xew noo a mel foo mën a ne xool bi yow la bëgg